yaay Cheikh Awa Balla noo ngi ñaan mu yàgg lool te soxna may kat musoo koo def nday wala nga def ko lenn ab sëriñ nga ko def ndax sëriñ Touba Cerno Ibrahim sa maam bi nga yegg si léegi ci la fekk fàllu fàllu fàllu si la mii di ci wax bi sëriñ Touba roofee tànkam ci diggalu ngelaw mi dañuy dénk naa leen yàlla yont bi ak seen bàyyi Cerno ñu ko bu ñu jagam bu ñu buun bu ñu saalañ kon Mbakke boo ñëwee toog nii te tey ñii fi toog yàlla nii koo yebaloon mu doy waaye nag bëgg a dundal soxna May ak sëriñ a Awa Balla moo waral sa toogaay bii sëriñ maam Thierno yàlla na nga fi toog lu yàgg li nga sëmbat Cheikh Awa Balla yàlla na lépp yàgg xol yi sedd na xel yi dal na waa kër sëñ Basiirou Sarr. jaamu Serigne Touba ñoom nga fekk ñu doon siyaare ak daayira bii di daayira soxna may joge Ndakaaru ñaari ginaar ya sëñ Fallu waxoon soxna may waa ko sëñ Basiiru Saar sëñ Basiiru Saar moo ko def ñaari junniy ginaar ñoo ñëw léegi indi ñeent fukki bool lépp ay fruits nga yegg si Mbakke xol yi sedd na soxna ak mii ak cantam ci yow am na tàmbali waaye am fu mu génnu la ci benn fànn yaay soxna moom yaay Cheikh Balla ci moom yaay Serigne Cheikh Gaynde Fatma ci moom kon astu soxna astu génnu la ci benn fan waaye Mbàkke biñ la séenee naw yi dagg na xol yi sedd na waaye yaa mën a deseeg njaboot ku deseeg njaboot da nga leen di muñal te lu ñu ne nga ànd koog ñoom Mbàkke noo ngi ñaan nga yàgg lool te wér noo ngi ñaan nga yàgg lool te wér démb damaa toog rek bu ñaay woo ma ñëw mu ni ma xaaj bu bari bii kat sëriñ maam Thierno moo la ko yónnee te Cheikh Abdou Khadir laa àndal moom sëriñ Touba mu yendoo yow fanaan ak yow. ba ca guddi mu ni na ngeen seere ni Thierno murid saadix la keroog bi muy génn di nuyu sëñ Modou Makhtar Saraka ja ñu indil kooto bi daf ni bàyyi sëñ Abdou Khadir ni bàyyi leen ma dox jaar ci penc mi Cheikh Awa Balla doon jaar bàyyi leen ma dox Mbakke noo ngi ñaan. nga yàgg loolu te xol yi sedd na. alxaaji maam Thierno Mbacke di Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke yaa xafaara zunub moom maam na Ibrahim borom daarul moxti soxna sa ngi yëkkati kàddu waaye da koy tuub nee na ndeex nee na wërta yëkkati genn kàddu ci sa kanam ndax yaay léppam te yow day yàgg nga wax fii ne soxna Bali day jàppewu ma ko rakk sama doomi sëriñ laa ko jàppe sox may soxna may mun a jàppewu ma ko ndey sama sëñ Tuubaa laa ko defoon waxit ne loolu sëriñ Cheikh Awa Balla moo la ko digaloon te yow sam xëy ak sa ngont mooy ci ndigalul sëriñ Cheikh Awa Balla soxna su nee na di wax nag ne mi ngi seereel jullit yëpp di seereel àdduna bépp ne fu ko soxna Bali waroon a féete day féete nga ko fa keroog ba fi soxna Bali xëyee ba bisub tey dangaa ñëw rek toog wettili ko man naa am ku ñëw du gis sa jëmm ni de waaye waxtu wu ne yaa ngi fi jógoo fi guddi jógoo fi bëccëg bokk nga ci li tax aw fitam dëgër am xelam dal njortam gën a rafet mooy sa taw bii ak sa taxawaay bii nee na kon nag moom day lu mu am ci sëñ Tuubaa lam ñaan mooy yàlla nangul la sab liggéey ba noppi guddal saw fan ndax xam ne li ngay xëy lépp ngërëmul sëñ Tuubaa rek ngay wane Seex Awa Balla woowee ñu toogoon reeru sëñ Fàllu ba nee na tey jii da nga cee war a doon seere ndax danga gën a santaat Seex Awa Balla xam ne sëñ Tuubaa gërëm na ko yaa di ginaar ya soxna may toggoon jafe woon na ko lool ba koy togg oto bu ko andi jafe woon na ko ci moom njabootu sëriñ Basiiru Saar a ngi nii jaamu sëriñ Tuubaa ñaari junniy ginaar ak ñaar téeméer andi nañ ko fi andi nañ fi ñeenti gëléem waaye dañ ne ñoom daal dañ faaw ñu def luñ musta def dañoo dem wëri piccum bànjool yi ba jàpp ci ñaari baa indi jox ko soxna si te nee na loola sa bàjjan bu baax ba ba mu ko bëggee fetal la wut jox ko doomi sëñ Abdou Sakkoor Fall na ko demal rëbbali ma baax waaye nangu nangu liggéeyu sañ Tuubaa nee na moom bi cim xelam demee dañ ko koo andil joxe wut fetal rëbb la wut nee na nag loolu wóor na ko ne liggéey bu nangu rek la kon mi ngi sàkku ñëpp ñaanal la nga yàgg fi loolu te wér te am ngërëmul sëñ Tuubaa lépp loo koy ñaanal na ko njëkk ci ñii ba noppi te ko ci loxol Adja Leena mee teg ko ci loxol njabootu sëñ Basiiru Saar gi yàlla fajal leen seen i aajo ndax nee na aajo ju faju doo nga leen fi tax a ñëw te wóor na mën a yow mii toog tey jii boo ñaanee ci sëñ seen ajo faju kon daal nee na nag muy ñaan mbaar mi moom ku ko ron faju tey jii nee daal loolu képp la la sase tey ci laytu xadar ji nangu leen ca fas ko na ñëpp nangu te fas ko amin amin waaw day dugg ci biir amin amin amin amin amin amin amin amin amin ñu may ko mu dugg ci biir